asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñëwaat nañ tey ci seen juróomeelu juróom-benneelu vidéo euh, ci cours bii di euh, programmation objet et événementiel javascript tey nag ñu fas yéene ñëw ci lu ñu wax fonction yi kon euh, bu dee ci fonction yi am na ñeenti xeetu fonction yu ñu mën a am bi ci njëkk mooy fonction bu am boo xam ni amul argument ba noppi amul valeur de retour donc exemple benn fonction ngi nii Euh, fonction salut benn fonction euh, fonction salut donc fonction bi pour nga créer fonction en javascript nag waxoon nañ leen ne dangay ngay def function après nga def turu fonction par exemple fonction bi salut li mooy paramètres yi maanaam argument yi argument yi si biir parenthèse yi bu amul dara rek mooy tekki ne argument yi dafa vide donc bii mooy benn fonction boo xam ne amul argument mi ngi nii mais amul type de retour tamit kon pour nga woo fonction bi nag gis nga lii su ma defee par exemple def fichier ñu enregistré ko def que par exemple cours 6 point html voilà donc su ma ñëwee euh, cours 6 moo nekk nii donc su ma ci biir bi gis nga mu ngi nii du am dara parce que fonction bi dama ko créer rek mais woowu ma fonction bi pour nga woo fonction bi da nga koy jël turam ak paramètres yi quoi loolu mooy tax fonction bi mën a afficher donc fii su ma defee nii woo naa fonction bi léegi léegi dafay dugg ci fonction bi di salut exécuter fonction bi daal lay defal alerte bonjour tout le monde donc actualiser gis nga daal na koy def bonjour tout monde donc li mooy fonction sans argument mooy biir paramètre biir biir parenthèse du am dara donc loolu amul argument amul aussi valeur de retour donc loolu mooy première fonction bi ñu leen bu ngeen gis ni mu ni sans argument et sans valeur de retour donc loolu mooy première fonction bi euh, beneen euh, fonction bi beneen fonction bi mooy fonction boo xam ni avec argument la mais ba tey sans valeur de retour fonction boo am argument mooy fonction boo xam ci biir parenthèse day am dara exemple exemple su ma defoon fonction boo xamante ni maa ngi koy tuddee somme entier pour mu defal ma somme entier wala wala walla wala wala ma def afficher nom mu tuddee ko afficher nom pour mu afficher leen suñu tur léegi fii avant fonction ma créé benn variable var nom var non léegi nag fonction bi ci biir parenthèse am dama koy jox variable bi nga xam te ne saa yu ma woo fonction bi rek dama koy joxaale variable bi donc fii su ma ñëwee bonjour donc bonjour ma def plus yokk variable nga xam ne su may woo fonction bi su fekkee dama ko def non égal Chérif donc day def day dugg affiché bonjour Chérif day xaaral ñu woo fonction bi bu dee fonction bu am argument nag mooy boo xam biir parenthèse yi am na dara donc su amee dara soo koy woo par su may woo fonction bi damay def affiché affiché nom entre parenthèse ma jox ko variable parce que dafay xaar fii gis nga nii day xaar benn variable il faut ma jox ko dara ma jox ko lii li mooy fonction avec argument su amee dara ci biir parenthèse yi rek mooy tekki ne am na argument su amul dara mooy mooy tekki ne fonction bi amul argument donc ñëw exécuter fii actualiser gis nga bonjour après Chérif li parce que Chérif li bi moom laa ko jox comme argument parce que fonction bi dafay xaar benn variable te variable donc la comme Chérif li su ma ñëwoon def UVS tamit enregistré donc loo ko comme argument rek loolu lay te gis nga bonjour UVS voilà moo nekk nii donc loolu mooy deuxième type de fonction bi mooy euh, fonction boo xam ni am na argument mais amul valeur de retour bi amul argument amul valeur de retour donc saa yu amul argument rek mooy parenthèse dara du fa nekk saa yu amee argument mooy parenthèse bi dara ngi si léegi am na beneen fonction bu ñu leen jox li fonction calcul mu am ñaari variable la am bii mooy fonction boo xam ni amul argument parce que parenthèse yi dara nekku si mais am na valeur de retour ndax dañu gis lu mu defal la return donc return moom foo gisee ci biir fonction rek mooy fonction boobu am na valeur de retour voilà léegi par exemple voilà def nii ma def fa effacer li ma defoon yëpp daal di créer fonction tuddee ko calcul fonction calcul waaye nag puisque amul argument damay dindi fi biir am dara variabilité mën naa koo supprimer donc sama fonction amul argument donc lan la fonction bi di def mooy mooy dafay dafay créer benn variable x égale 10 y égale cinq après mu créer variable somme est égal x plus y léegi nag bu fonction bi jeexee daf lay retourner lan lay retourner lii la somme est après mu def 15 donc variable faa yoo gisee fonction bu am return rek mooy fonction bi am na valeur de retour mooy valeur bu muy retourner à la fin léegi su may woo fonction bi par exemple su ma ko doon afficher ma def euh, alerte alerte ma bëgg. mu woo fonction bi ci biir boîte d'alerte donc lan lay def bu boobaa mooy dafay afficher dafay dafay dafay woo naa fonction bi donc dafay ñëw exécuter fonction bi après mu retournel ma lii lay retourner ci benn boîte d'alerte donc moo tax ma ma def ko alerte entre parenthèses ma jox ko non fonction bi donc su ma actualiser su ma enregistrer ma ñëw fii actualiser donc gis nga mu def ma la somme est quinze donc lii mooy fonction boo xam ne moom amul argument parce que biir parenthèse dara nekku si mais am na valeur de retour ndax am na return saa yu gisee return rek mooy am na valeur de retour léegi fonction bi ci mujj nag moom mooy fonction boo xam ne am na argument maanaam gis nga am na dara ci biir mais amul valeur de retour exemple buñ bëggoon modifier bii maanaam ñu créer ci biti ni var x virgule y point virgule na ñaari variable léegi nag fii booy woo fonction bi day xaar ñaari variable x ak y donc fonction bi am na argument parce que am na daal ci biir parenthèse voilà donc xaar ma ñëw supprimer donc fii ma def euh, var s égale x plus y gis donc fii dama ñëw ci biir ma ma ma jël variable somme day nekk x ak y après mu affiché ma la somme est nangam mais x ak y valeur lu tax parce que booy woo fonction bi calcule de ci nga koy joxaale x ak y donc fii su may woo calcule moom ma jox par exemple cinq ak six cinq mooy x six mooy y donc li mooy fonction boo xam ni am na argument ba pare am na valeur de retour am na ñaari kon am na argument am na valeur de retour ñu enregistré ñoo actualiser gis nga dafa ma la somme ay donc loolu mooy lu jëm ci wàllu fonction yooyu mooy ñett façon fonction mooy fonction bu njëkk bi mooy sans argument et sans valeur de retour lu tax sans argument parce que ci biir paramètres yi amul dara mooy biir parenthèse yi amul dara donc sans argument la ba noppi fonction bi amul return kon sans valeur de retour la retourné wul dara à la fin deuxième fonction bi mooy fonction sans argument mais avec valeur de retour sans argument ndax biir parenthèse yi amul dara mais am na valeur de retour parce que am na return gis nga dafa retourné dara à la fin troisième fonction bi mooy avec argument et sans valeur de retour avec argument ndax biir paramètre am na dara mais amul valeur amul return kon du retourné dara à la fonction bu mujj nag mooy avec argument et valeur de donc am na am na dara ci biir parenthèse mooy am nay argument mais am na return aussi ndax dafa retourner dara à la à donc loolu mooy lu jëm ci wàllum euh, wàllum fonction yi léegi nag euh, léegi nag am nay fonction yoo wax fonction euh, prédéfinie mooy fonction yoo xam ne moom yow yaa ko créé fonction yu ànd ak ànd ak euh, kii bi la langage javascript léegi ñu jox la benn exemple eval eval mu ne dañ koy exécuter euh, dafa dafay exécuter benn code javascript à partir d'une chaîne de caractères ci benn jële ko ci benn chaîne de caractères par exemple euh, euh, par exemple gis nga fii am nga fonction évaluation document point formulaire point calcul point value égal eval gis nga fonction bi ñëw document point formulaire point saisir point value donc fii valeur bi ñu saisir lay calculer donc daal koy jox affiché ko fii gis nga donc fii benn exemple gis nga fii am nga benn formulaire input type name gis nga name saisir donc fii ngay saisir valeur donc xaar ñu essayer créer formulaire bi dañuy copier dem créer ji formulaire bi formulaire baa ngi nii donc formulaire bi euh, ñu dindi fonction bi ñu amoon nii nag ok ñëw actualiser donc gis nga formulaire baa ngi nii formulaire baa ngi euh, fois neuf voilà gis nga par exemple fii fonction bi la donc Euh, on click gis nga bouton bouton boo ñu def gis nga première bi moom ngay saisir fii ngay saisir donc pour type saisie donc mu mu laaj la li ngay saisir donc moo tax nga am nga am nga am fii comprendre léegi euh, input type button moom moo la jox bouton bii nga xamante ne mooy bouton évaluation beneen bi on click maanaam saa yu cliquer ci bouton bi rek évaluation demal nga calculer gis nga nga nga nga évaluer li ñu saisir li ñu saisir après euh, fii input type texte name calcul gis nga après nga ñëw calcul daal koy affiché foofu fii seulement am na benn erreur ndax gis naa fii saisir dafa am e alors que fii amu amu ko gisoo comme saisir loolu erreur la si si fii dafa am la voilà actualiser xaaral ñu xool beneen exemple javascript javascript fonction eval waaw boo defee gis nga di nga gis ay solution yu bari añu xool W3 School bi benn exemple yi nii voilà exemple gën a simple ngi nii voilà exemple gën a simple ngi pour wan leen ne fonction eval euh, ni mu yombee utiliser donc gis nga fii am nga benn variable x égale à dix ak benn variable x y égale à vingt nga créer benn variable nga def eval x fois y gis nga en parenthèse donc lii lay calculer joxaat yi jox a calculer deux plus deux jox ko b calculer euh, calculer gis nga euh, c' est li gis nga ay expression kii donc eval expression rek la lay calculer retourner la donc benn variable donc fii suma ñoom def alerte dans les normes def euh, alerte alerte def res voilà ma résultat bi résultat bi égal a plus b c donc de calculer lii jox ko a calculer lii jox ko b calculer lii jox ko c après nag daa jël résultat a plus b c donc loolu lay jox comme comme résultat voilà le centre et plus waaw léegi nag lii dafay considéré sax comme euh, day calculer lii mais gis nga boo defee plus BR bi dans les dafa war a euh, dem à la ligne quoi donc ñu xoolaat euh, consulte bi fonction kii bi ci cours bi moom dans les normes waroon na marché quoi mais bon on va essayer de entre guillemets xool deux plus quatre voilà voilà mi ngi nii donc euh, comme chaîne la koy kii la koy jàppee expression soo defee deux plus quatre tout court voilà six très bien mi ngi noonu donc ça marche kon mi ngi mi ngi dox sans problème voilà donc lool mooy njëriñu eval euh, euh, ba tey ci fonction prédéfinie am na is finite is finite dafay dafay dafay déterminer euh, si le paramètre est un nombre fini donc dafay su fekkente ne c'est un nombre fini donc dafay renvoyer true si le mu renvoyer donc gis nga renvoie false si ce n'est pas un nombre ou l'infini positif ou infini négatif gis nga donc fii boo defee is finite nga jox deux cent quarante mu retourné la true parce que c' est un nombre fini is finite un nombre gis nga mu defal la false parce que lii c' est pas un nombre fini voilà am na beneen fonction bu wax is none is none dafay déterminer ndax li nga jox en paramètre euh, est pas c' est pas un nombre nan mooy tekki not a euh, number loolu lay tekki sama is none nga jox ko lii day xam ne lii donc retourne true is none 20 retourne false donc is none détermine si le paramètre n'est pas un nombre su fekkee du nombre su fekkente ni c'est pas un nombre lii lii c'est pas un nombre on def donc c'est vrai true donc is none lii c'est un nombre donc c'est false donc is none su fekkee du nombre donc true la bu fekkee nombre la mu tourne la false donc am na yeneen fonction prédéfinie parce float donc day analyser benn chaîne retourner la benn nombre décimal genre conversion lay def koi donc si l'argument évalué n'est pas un nombre dafay renvoyer nan un nombre par exemple var numéro égal gis nga lii dafa am entre guillemets kon da ko jàppee chaîne de caractère léegi nag mën nga ko convertir def ko def ko euh, def ko float par exemple gis nga var nombre égal parse float de numéro donc numéro bi mooy li nga xam te chaine chaîne de caractère la nag guillemets yi mais puisque li ci biir bi mu ko évaluer xam na ni nombre la donc mën na ko retourner daal lay jox cent vingt cinq tout simplement mais bu fekkonte ne fii dañ ci am leneen lu nombre par exemple du ko mën a convertir voilà donc parse int nag mooy convertir entier moom donc parse float mooy convertir nombre décimal parse int mooy convertir entier donc day analyser donc si benn chaine étant non après mu retourner benn entier à la base spécifique exemple gis nga bi var prix mooy benn variable prix var arrondi égal gis nga parse int 2 nga dafay convertir lii en entier après mu arrondi le donc 30 lay retourner tout simplement ba tey euh, yooyu mooy donc lu jëm ci wàllu wàllu fonction yi kon ñu yemalee cours boobu fii ba ba ba beneen incha allah rabbi jërë ngeen jëf